Bonjour, nous sommes ici, si vous le centre d'entraînement de l'équipe de Djaraf. Vous savez que Djaraf est une équipe qui représente le Sénégal Renji, l'Afrique, la euh, Ligue des champions CAF, hein, ah, non, euh, mais également am ay ambition nekk champion du Sénégal ñëpp xam nañu ne c'est le club le plus euh, titré ba tax na ñu ñëw fii tey xool seen i préparation ci loolu noonu di coupe CAF xam ngeen ni joué nañu seen benn match éliminé daal di vingt match ak San Pedro naka la ñuy eh, préparé mooy championnat du Sénégal ñëpp xam nañu daaw championnat bi àggul ren nag jaraaf amati yeneen objectif di nekk champion eh, di eh, Sénégal dañuy waxtaan ak le directeur technique ki nga xamante ne mooy Khalifa Ndiaye mais également le capitaine de l'équipe dañuy waxtaan également ak le coach lépp ñu posé leen ay questions yi nga xamante ne day tourner autour de leur préparation mais aussi ñu dundee Covid 19 bi ak léegi-léegi lay ah, doon mbokk yi ñu ah, taal leen suñu micro ñu daal di ah, teewlu. au niveau du Jaraaf dune nañ ko at difficulté parce que tamit xam nga nga toog huit mois compétiro métti na mais situation bi nga xamante ni moo taxawoon il fallait que ñun ñëpp ñu jéem a nangu loolu xam ne ndogalu yàlla bu ñëw la Covid baa ngi fii il fallait arrêter les entraînements arrêter la compétition bon préparer wu pour reprise bi donc huit mois yombul. metti woon na parce que amoon na ay entrée yoo doon yaakaar wala jaay si ay jour wala dara yooyu yëpp dafa mujj taxaw et puis tamit metti woon na ndax da ngay def yaa ngi compétiro mais yaa ngi doon fay say jours parce que sur le plan financier loolu moo doon impact bi donc mais ñun au niveau di Jaraaf on a pu gérer période boobu yëpp grâce à l'appui du président Cheikh Ahmed Tidiane Seck on a pu gérer nos jours ñoom ñëpp di leen fay ba Covid bi jeex donc impact bi am na au niveau du club mais au niveau des joueurs da metti woon na parce que compétir uñu mais sur le plan financier on a pu gérer ça te c'était mooy l'aspect qui était très très très difficile à gérer mais alhamdulilah gérer nañ ko ba saison bi tij muy waaj a tijjiwaat. saison bi di waaj a seen préparation euh, nu mu demee ci wàllum euh, technique euh, su changement bar technique mooy na leen waajalee économiquement. waaw xam nga saison bi bi moo demee bay war a waaj a tijji jaraaf daaw xam ngeen saison bi yeggul. jaraaf moo terminé woon deuxième donc fédération bi mu defee arbitrage nee na jaraaf mooy dem coupe CAF donc ñun bi ñu demee ba xam ni daw nañu jouer en fin novembre automatiquement on a pris des dispositions pour jël sunu joueurs yi dugal leen fin septembre du moins la ñu commencé dem hivernal fii à Lac Rose yóbbu une trentaine de jours ba pare renforcer joueurs yooyu parce que déjà objectif bi njëkkoon am mooy sunu anciens sunu cadres yi. kenn jógewul suñu club ñu ñëpp on a su les maintenir ba ñu resigner euh, renouveler seen contrat def ay recrues yu bees yu baax sax macha allah indiwaat leen def tamit renforcer tamit l'équipe sur le plan tactique parce que dañuy wutiwaat beneen entraîneur mu ñëw yokk ci staff technique bi fi nekk à part Daaf mooy entraîneur principal bi wuti nañu Moussa Diatta recruter ko renforcer tamit sur le plan médical parce que sur le plan physique il fallait le faire ñëw ñu am ñaari pré ñaari préparateur physique at Ibou Diatta de haut wut tamit un médical renforcé sur le plan médical pour xale yi parce que xam nañ ni reprise day métti blessure yi mën na bëri donc lool lañ njëkk def donc dugal nañu xale yi pendant trente cinq jours en regroupement fermé à Lac Rose ñu travailler foofu beaucoup sur la physique pour reprise ndax muscle yëpp taxawoon na reprise préparer leen après nag y avait l' aspect tactique technique yi nga xam ne entraîneurs yi gère nañ ko ba ñu mën a aboutir vers le premier match le premier match officiel c' était contre Canopilar le 28 novembre ici à yàlla may ñu ci ndam. donc parce que loolu moo si ëpp ñu xaar nag continuer compétition parce que qualifié nañu war a dem vers le championnat national bi nga xam le 2 janvier lay tijji donc yaa ngis ñu ngi si entraînement yi mayu ñu dara ñu ngi ñibbi si jóge Nigéria euh, mercredi mais gis nga. Euh, mardi ci ngoon on s'est reposé que le mercredi pour reprendre les entraînements le week-end bi sax dañ koy parce que la compétition day ñëwaat dès le Jaraaf daal bokk quoi qu'on si top 3 euh, club nekk ci fii ci Sénégal daaw ñu mujjee am nekk deuxième place bi euh, donte ay jeexul yan mooy objectif club bi si saison bi 2020 2021. xam nga Jaraaf moom comme que ce n'est plus l'équipe à présenter au Sénégal mooy équipe bu mag bi avec ses titre quand tu as 27 titres nationaux. donc équipe la boo xamante ni il peut pas d'avoir avoir ambition qu'à gagner donc ñun suñu objectif toujours c'est d'être champion du Sénégal suñu objectif toujours c'est de gagner la coupe surtout période bi nga xamante ni période coupe d'Afrique la c'est d'essayer d'intégrer les phases de poule depuis 98 benn club sénégalais réussir ko ñu ngi jéem a sabablu pour ñun at sunu nawla yi si naaka naataango yi ci nekk mooy sunu nawla waa Tëngéej ñu réussir loolu Tëngéej moom prochain tour bu rombee rek dañuy intégré phase yi na ko yàlla def ñu éliminer Raja de Casablanca Jaraaf am na San Pedro le le 22 à Dakar et le 5 à Abidjan bu ñu rombee tour boobu dañu amaat beneen chance yokku donc loolu la ñuy ñaan. ñu ngi préparé yooyu mooy suñu objectif mais pour le plan national moom la Jaraaf cherche toujours à être champion du Sénégal et vainqueur de la Coupe du Sénégal. mu doon lu euh, Jaraaf euh, daal di ak Kanopilar euh, éliminé leen war a ak San à Pedro mais ñu faral di gis club sénégalais yi daal di am jafe-jafe au niveau de l' Afrique lan moo koy expliqué. waaw Afrique moom métti parce que tamit y' a beaucoup d' aléas parce que yéen gis Jaraaf kenn fàttali yàggul dernière campagne africaine am xaw na éliminé le futur moo tax ñu éliminé ñu. parce que lu tax on a été éliminé à la dernière minute ci benn bal boo mooy loolu daal on sait qu'Afrique y a l'arbitrage qui joue mais on sait qu'ici il faut avoir une équipe expérimentée ren nag on a cette équipe expérimentée moo tax ñu am yaakaar te condition de voyage dafa metti par exemple le Jaraaf a quitté Dakar le vendredi matin pour jouer ji samedi on est resté de huit heures à vingt heures trente la Nigéria pour jógee encore Abuja dem Kano lande su astafurla Kaduna le lendemain donc condition yooyu il faut ñu gérer ko y a un a logistique bi transport bi loolu mooy première chose boo ko gérer tu as des chances de réussir léegi nag ñun on est en train de voir match bi li ñu taloon mooy dañu ñëwoon déplacé wu pour dem aéroport y a eu un problème avec la compagnie ñu raté volu mercredi bi donc il fallait reprendre le le vendredi matin mais bi ñu demee les jours ont été héroïques l'encadrement technique héroïque ñu dem ba gérer match toutes les difficultés ñibbi si mais on va on a encore gagné en expérience pour cette année parce que lu tax Covid bi moo tax compagnie dafa defe il est très difficile de voyager actuellement test yi fii jaaral fii ainsi de suite mais on a gagné en expérience su ñu déplacé wu à Abidjan dañuy jël suñu matuwaay ba du ñu am désagrément yooyu mais je pense que bu ñu gérer logistique bi transport bi. on a l'équipe pour pouvoir s'imposer dem ci phase de poule. nga nekk directeur sportif euh, mu nekk poste bu bu bu stratégique euh, naka ngay def pour retenir tes bons joueurs. waaw c'est vrai que moom retenir say bons bu amee rek mooy c'est pas une politique seulement de la direction sportive politique gu club bi la mooy être mettre les joueurs dans des conditions de travail et dans le plan sur le plan social loolu le président Cheikh Ahmed Tidiane Seck ak le directeur du football fexe ba loolu am donc ñun suñu côté suñu liggéey day mujj yomb soo amee ñaar ñoo xamante ne xam nañu aspect bi ñu war a def les jours adhéré ci automatique on a on a pu charger nos jours te tey jii quand tu recrutes aussi vu que ñëpp ngi xam nañu li xew Jaraaf si tu recrutes ici à Dakar jafewul joueurs yi xamante nañu xam nañu Jaraaf c'est un club stable sur le plan financier stable sur d'autres choses donc et c'est le plus grand club du Sénégal dañuy ñëw léegi dans la sous-région daa amoon nañu ay Guinéens ren on espère ñaari joueurs étrangers ñu ngi war a ñëw ñu ngi xaar ko mais loolu politique boobu nag c'est parce que le club l'a voulu mooy sur le plan social stabiliser le club sur le plan financier stabiliser le club et là l'ambiance aussi autour du club avec nos supporters qui sont très très vaillants je pense que li nga xam ne moo nekk ci kanam coupe d'Afrique la d'abord parce que boo xoolee dañuy jouer coupe d'Afrique match bu important mooy deuxième tour bi championnat bi xam nañu ne le 2 li ci am solo mooy bu ñu préparer coupe d'Afrique bi su baaxee rek. pour man championnat bi dina baax mais li ëpp solo mooy ñu concentré ci objectif yi nga xam ne moo ne suñu kanam léegi bu affaire yi ñu door ci jublu ñu concentré man match par match la ñuy joué quoi Coupe boobu ngeen gagné équipe bi ngeen war a dajeek San Pedro mu nekk club ivoirien mu nekk club am doole euh, ndax xam nga club boobu San Pedro depuis quelques années gis naa ñu ngi góorgóorlu di def seen kéntu lay kattan pour dugg ci phase de poule mais comme on dit Jaraaf aussi équipe bu mag la bu ñu Sénégal bu ñu partout euh, daaw daaw jékk xaw nañu frôler un peu euh, phase de poule ren dem nañu am match bu métti kon Kanopiar bokk na équipe mag biir Nigéria yàlla def nañu gañe ko fii dem fële match match bu nekk ak ni ñu koy joué soit adversaire bi nga xam ne moo nekk en face en tout cas ñun suñu objectif mooy jéem a jaar phase de poule donc dañ def suñu kéemtulaay kattan ñu liggéey ak beaucoup d'humilité ñu liggéey ak beaucoup d'humilité encore ñu préparer suñu match bi fii géem a gagner d'abord ensuite pour préparer match retour bi incha allah bu neexee yàlla say ñu quoi bi ñu demee fële Nigéria samedi la ñu joué donc euh, mercredi ñu bisi démb ñu def donc dominante était un peu physique

passé moo tax ñu xool raccourci jéem a def un bon travail foncier président bi nag di ko sant di ko gërëm génne na xaalis te équipe bi pendant un mois et demi ñu nekk fële nu ko tuddee dee euh, Lac Rose loolu itam jàppale nañu bu baax parce que tëju bi ñu ju liggéey foofu jàppal nañu baax loolu permettre nañu trouver ay raccourcis moo tax équipe bi macha allah di wax ni du ñu ne lépp waaye nag wax dëgg yàlla équipe bi ci yoon boobu nga xam ne yaakaar nañ ko mooy bëgg nañ ko daal. Jaraaf nekk club bu gën a titré euh, au Sénégal mais au niveau de l'Afrique ñu gis ni club yi yëpp sénégalais yi dañu am problème. loolu am na defe naa du Jaraaf rek sénégalais yëpp la waaye suñu bëgg-bëgg ñun ren moom mooy jéem a def tout pour de poule yi. li nga wax ko waaye chaque fois da ngay ñëw ba ci troisième tour bi ci porte ba après ñu éliminer la rek moo fi am mais ren moom suñu bëgg-bëgg moom ci kàttanu yàlla mooy géem a dugg ci phase de poule du yomb nag ndaxte li ñu bëgg la ñëpp bëgg mais ñun tamit loolu lañ bëgg te dañ ciy liggéey on a l'équipe pour gagner n'importe qui mais li ci am solo mooy ñu gën a concentré wu ñu liggéey ak humilité parce que lépp ci humilité la laxaj quoi des fois li euh, équipe sénégalais yi perte ko parce que day euh, ci ren euh, euh, préparé wu ci loolu psychologiquement. waaw xam nga ñun y' deux ans demoon nañu Afrique donc jot nañu gis tuuti am jot nañu gis tuuti jàngat tuuti li nga xam ne am na équipe yi mën nañu lépp moyen mais mën nañu la moyen moo tax da leen di permettre facilement ñuy wuti ay joueurs fu leen neex mais ñun Sénégal bon suñu peu de moyen de bord ñu ciy demee ak moom ñu ngi liggéey fii gars yi ñu ngi liggéey suuf man je pense que daal comme ni nga ko waxee euh, Euh, euh, la clé moom du travail c'est le travail amul leneen mooy nañu continuer gëm suñu bopp ñu liggéey ñu continuer gëm suñu bopp suñu liggéey ak humilité ñu gëm ba ñu am un bon état d'esprit nag ñu xam ne lu mënul nekk ci àdduna amul Covid bi li mu amee Sénégal moom la am partout dans le monde donc Covid bi fépp la donc suñu problème mooy problème mu ñeneen ñëpp li ci des nag mooy am un bon état ñu conquérant ñu gëm def tout xam di gagné suñu match à domicile parce que déjà boo bëggee jàll il faut ngay gagné domicile te d'habitude suñu équipe sénégalais yi ñëw à domicile di gagné score étriqué wala di gagné difficilement moo tax suñu génnee souvent dañuy am problème ci dëkku yi en tout cas daal xam naa ni loolu am nañ ci jàngat gu bëri li mooy ñu gën am humilité encore ñu continuer liggéey rek bu soobee mun na am évolution en cours du match moom ça dépend parfois mun na ñëw ba ci biir moom ay changement moom day am xam nga système moom du figé système du figé mun nga de départ mais en cours du match mun na après ay changement ay réaménagement yi am quoi. waaw corona bi mu ñëwee moom presque yàqal nañ suñu activité boo xam ne moom ndax am ñun dañoo opté pour doon footballeur par coronavirus bi nag bu mu ñëwee na yàqal nañu lu bëri waaw yàqal nañu lu bari bon ñu ngi koy dund daal comme ñëpp ni ñu koy dundee daal métti na trop mais ñu ngi essayer gérer quoi. nga nekk euh, capitaine nga nekk joueur emblématique euh, bu Jaraaf capitana ñëpp xam nañu yombul noo koy gérer techniquement. man moom bu may ñëw fii bon dama newoon ak euh, ñoo xam ne ñu am expérience su affaire capitaine yaar bi mooy comme ay Siré Dia Djibril Silibé ak ñoom Ibou Cissé ñoom seen ginnaaw rek laa toppoon di xool ni ñu ko doon gérer man tam bu ma ñëwee tànk yooyu rek laa doxee di ko gérer nii ba léegi. ya quelque a quelques jours ngeen éliminé club bi di Canopiar ci Coupe CAF. Euh, victoire bu am solo euh, loolu euh, est-ce que surprendre la. non non surprendre ma ndax mu liggéeyoon nañ ko nag ndax ñun dañu teel a dugg préparation presque ñun dugg nañu def nañu un mois préparation après amaan nañu quelques matchs amicaux loolu moo ñu xaw a gën a may sax bon sens pour match yi mu bu ñu jubloon nii yàlla may ñu si ndam comme que am nañu quelques matchs. mais du match compétition waaye match amical te en plus préparé woon nañu ni ñu war a préparé moo tax bu ñu ñëwee ça s'est bien passé alhamdulilah moom. ngeen war a euh, jublu si beneen match au niveau de l' Afrique war a daje San Pedro nekk club ivoirien bu bu bu taxaw bu bu am doole naka ngeen di préparé ci club boobu. bon comme ni ñu ko daan comme ni ñu daan préparé match yi dañ koy préparé bii moom xam naa day doon match spécial ndax am presque match bi moo ñu dese bii suñ ko qualifié moom. dañuy dugg phase de poule te incha allah club sénégalais yi gën nañu dugg phase de poule te ñun ñu ngi ñaan gars yi ñaanal ñu ñu mën a dugg phase de poule incha allah. ngeen dugg phase de poule ñeneen ngi fa def euh, yow lu am lu am solo euh, club bi di euh, Jaraaf championnat Sénégal daaw arrêté ngeen nekk deuxième position ren lan mooy objectif bi. Jaraaf moom chaque jour moom objectif moom mooy championnat ak coupe yëpp daal waaw moom moom jël trophée mooy objectif am chaque année moom objectif mooy jël trophée te ñu ngi ñaan ren yàlla may ñu ñu triplé. Euh, fi may mujjee nga nekk euh, capitaine emblématique xam te ni ci équipe bii di Jaraaf ngay euh, suivre football d'une manière général keroog gis nañ fi benn chaîne bu bu bu doy waar racisme diggante Paris Saint-Germain ak Istanbul ñu gis ci Demba Ba def ci réaction bu am solo boo gisee racisme ci football nga nekk joueur professionnel lan la lay def. bon daf may métti ah daf may métti comme euh, nu muy méttee bépp africain xam nga tam nekk ak say naataango moom mun naa ne po bi rek moo leen euh, différencier waaye yéen ñëpp euh, même nit ki la waaye moom po bi moo leen différencier. loolu moom suma sañoon moom si gars yi def ay jéego comme Demba Ba joxe na benn acte fort benn signal fort su nekkoon joueurs yëpp dañuy solidaire kon xam naa racisme moom léegi mu jóge fii moom. question bu mujj si joueurs internationaux yi ban mooy sa man <laughs> non man na bu may nekk booy piol lañ ma daan wooyee waaw piol lañ ma daan wooyee jamono may nekk booy may nekkee ko du fubal piol lañ ma daan wooye quoi. jaraaf moom ne rek lañ may wooyee. am lu ñu kontaan kontaan am na lu nekk suñu kanam xam nga ñu fàtte loolu xam ne am na beneen match boo xam ne moo ñëw te moo gën a importance ñu waajal ko bu baax parce que li si des bëreetul defe naa vingt trois 23 lañ dinañ si jouer benn jour quoi ñu ngi koy waajal bu baax xam nga gën a concentré wu liggéey quoi. ñu gis seen entraînement mu am ay joueurs yu taxaw yéen ñëpp euh, physiquement et techniquement concurrence bi ni muy demee. waaw bon loolu moom dina métti nag parce que ku nekk ku joué rek mun nga def différence quoi pour man xam nga muy man ak sama coéquipier yi ma yi ma joué ndool yëpp boo xoolee boo xoolee coach bi sax da koy wax tout le temps da koy wax parce que concurrence bi xam nga mooy wane kii joué. boo deful fulla ak fayda pour man doo jouer quoi moo tax doo gisee entraînement yi ñafe ñafe rek mooy tax nga jouer xam nga wane lu leer quoi. ngeen doon équipe vestiaire bi nu muy demee bi xam nañu équipe vestiaire moo ko yor. waaw ambiance rek waaw xam nga jàppalante boo xoolee solidarité bi daf fi daf fi am nag boo xoolee moo moo waral sax ñuy am résultat solidarité bi am na fi xam nga jàppalante bi am na fi man bu dee man joué ma keneen di joué tam dañ koy poussé pour mu def lu baax quoi lool mooy tax boo duggee nga def lu baax. di def euh, lu baax euh, yow euh, en tant que joueur nekk milieu de terrain ban mooy sa idole si joueur international. bi bon Cristiano waaw mooy. waaw mais parce que ñoo ndiroo profil quoi. mbokk yi li mu nekkoon euh, séance d' entraînement bi nga xamante ne équipe bi di euh, jaraaf doon ak euh, def mu nekk séance d' entraînement bu am solo ñu dégg coach bi di wax nu mu préparé ñëpp xam nañu équipe bi di jaraaf day football 22 wala 23 contre équipe bi di club bi di ivorien San Pedro ci wàllum coupe CAF Ligue des champions afri africaine ñu fas yéene di ci def lu am solo ñu préparé woon techniquement ak physiquement noonu la fa demee joueurs yi tamit surtout le capitaine na Makhtar Kanté moom tamit wax na ambition neex na nee na tamit euh, fu mu nekk ni a Sénégal lañu bëgg ndaxte ñëpp xam nañu Sénégal am na gëj na euh, africaine euh, jaraf nag fas ko def arène waaye tamit ki nga xamante ne directeur technique bi moom Khalifa Ndiaye moom na li ci am solo bi jaraaf def ko ñëpp nekk au top ñëpp présenté wu amul benn blessure candidature ñu fas yéene tamit euh, entamer ce qu'on appelle le championnat sénégalais bi nga xamante ni dafa war a tijji le 2 janvier euh, prochain tey ji nag ñu nekkoon fii ci euh, Sénégal Japon équipe bi di jaraaf daal di entraîné wu noonu lay demee saa su nekk ci club bi yëpp ñu ngi ñu ngi leen da jox rendez-vous prochaine fois incha allah